woneeti na cofeel gi nga xamante ni am na ko ci xam-xam ak njabootu ñi nga xamante ni ñoom ñooy sàkku xam-xam muy teewaayam ci bis bii kon ñi ngi koy ñaanal lépp lu muy sàkku ci ngërëmu sëriñ bi suñu boroom defal ko ko mu yàgg koo teewe bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye it ñuy sant bu baax ndongo yi nga xamante ni ñoom lañu seqal liggéey bi muy waa cours privé Cheikh Mor Thioune di sant waajuru ndongo yi ci seen kóolute ndax bu fi daara ji amee ñoom ñoo tax kon amal nañ leen cant goo xamante ni am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem waaye di sant bu baax nag ñi nga xamante ni ñoom lañu àndal bokk liggéey bi muy personnel bi nekk ci école bi ah, damay wax ni lépp lu fi am ñoom la rek ndax man kese mënuma ci dara waaye ñoom bi ñu boolee ku nekk sa kàttan rek ci la école bi taxaw kàddu yi nag xam naa du gudd lool waaye mënul ñàkk ndax euh, ren dafay première édition cant gi ñuy sàkku nag sëriñ bi defal ñu ñaan mu doon loo xamante ni at mu nekk dinañ ko def te muy tegu rek ci sëriñ bi bu mu ko wàcc mukk bu mu wàcc mukk ni ko suñ ni ko sëriñ bi bëggee ni ko suñu borom bëggee ñu tegu ci siraatal mustaqim rek bañ koo wàcc mukk ñi ngi sàkku sëriñ bi defal ñu ci ñaan kon xam naa waxtaanu tey bi nag dafa jëm ci thème bi ñuy wax lislaam l'éducation et le développement maanaam relation bi nga xam ne moom moo am ci islaam ak éducation baat bi matale rek muy defar nit ak développement maanaam yu toll fuy foo xamante ni maanaam suqaliku relation bi ci nekk incha allah bëgg nañ sëriñ bi defal ñu ci waxtaan woo xamante ni xale yépp dinañ ko teewlu ndax ay ndongo lañ mu doon loo xamante ni dinañ ko jariñoo incha allah kon ñu ngi santaat bu baax di tuubaat bu baax ci kàddu yi bisimilah jëwriñ maam Cheikh wa kafa wa salaamun ala ibadihi alladina stafa noo ngi nuyu mbokk yi fi teew yépp di leen ndokkeel itam di ndokkeel waa daara ji ci bis bii ñu woote mel na ne xasiida fees na fi lool noo ngi ñaan kon lii sëñ bi digge ci xasiida yi mu defal nu ko defal ko ñi ci yëngu ñëpp waaye di dénkaale itam ñi yëngu ci xasiida yi ñuy gëstu ba xam ni ko sëñ bi bëggee woon nu ñu di ko defe noona xasiida yi sëñ bi diggee na ci lu bari waaye nag am na sart yum ci teg itam mooy am na nuñ cay doxe ba mën a jot ca lam ca digge waaye ku ca doxe neneen yàlla na nu ci yàlla musal ab safaat mën na ko caa fekk moo tax ku ci soobu itam nag war naa gëstu ba xam ni sëñ bi bëgge ku ko cay doxe moo ko cay doxe waxtaan wi ni ñu ko waxe kon mi ngi jëm ci lislaam ak yar te sëñ bi tudde ko léegi defar nit ak yokku walla yokkute wala jëm kanam muy développement yett yooyu dañoo am ak lëkkaloo lislaam dafa am lëkkaloo ak yar yar am lëkkaloo ak yokkute wala jëmi kanam wala développement li tax mooy lislaam ak jubloom mooy nit ñi am texeg àddina ak texeg àllaaxira lislaam looloo ko tax a jóg yàlla bi wàccee diine ji da ko wàcce ngir nit ñi man cee jaare ba am texeg àddina ak texeg àllaaxira loolu kon mooy tënk li tax diine jóg texeg àddina nag mënees naa wax ne li ñuy wax développement moo koy jur texeeg àddina li ñuy wax développement moo koy jur texeeg àddina mooy aajo yi di faju ci lu yomb aajo yi àddina yi di faju ci lu yomb loolu nag développement moo koy maye àllaaxira ak texeem moom mooy am àjjana rek am àjjana rek loolu jaamu yàlla moo koy maye te jaamu yàlla nag doon lu yaatu waaye tax àddina moom mooy aajo yu àddina yi di faju ci anam gu jàppandi loola développement moo koy maye développement itam ab yar ci lay ci lay taxaw ab yar moo mën a jur développement mooy defar nit ndax nit moo mën a sabab développement kon defar nit kooku mooy tax développement mën am kon ñett yi gis nañu gis nañu ni ñu ni ñu duggante ni ñu lëkkaloo ñu lëkkalooyee li tax a jóg lislaam li ci aju ci àddina développement moo koy maye te développement boobu itam ab yar moo koy maye kon waxtaan wi day jëm ci nan la lislaam di jaare cib yar ba développement man a judd mën caa juddoo nan la lislaam di jaare cib yar ba developpement mën caa juddoo cib yar mooy ci defar nit ni ko sëñ bi waxee léegi rek kon dañuy xam lan mooy développement ba noppi ni ñu ko waxee woon mooy yokkute am na li ñuy tuddee mbootaayu xeet yi mbootaayu xeet yi mooy Nations Unies Nations Unies am na kuréel boo xam ne da leen a dénk wàllu développement ñu di ko toppatoo ñu koy wax PNUD PNUD bi muy xam ne développement dafa wax ne rek mooy daal lii tax ba nit ku ne ay man-manam gën a yaatu aw dundiinam gën a baax kon luy tax nit ku ne ay man-manam gën a yaatu aw dundiinam gën a baax aw dundiinam ci mbirum boppam akoo dundiinam ci biir nit ñi loolu mooy développement moo tax nu mën koo firee texe texe àddina ndax ki taxe ci àddina mooy ki nga xam ne dundiinam day rafet digganteem ak nit ñi ak ci mbirum boppam développement nag niñ ko xamee ay wàll yu wuute la am li wax développement ci wàllu social am na ci wàllu économie wàllu koom wàllu culture yooyu yëpp lu ci ne am na luñ ciy tudd développement waaye lum ci mën di doon rek ak yokk lay doon aku ku gën a baax ndax développement mooy di soppiku jëm ci gën a baax di soppiku jëm ci gën a baax ci wàll yépp kon wàllu gu ci ne buñ fexee ba ak coppiku di ca am waaye nag jëm ci gën a baax boobaa dañ naan développement mu ngi am développement nag dafa am ci yu muy taxaw yoo xam ne ñooy tax mu mën a am bokk na ca xam-xam xam-xam bokk na ci yi développement di taxaw bu amul développement du mën a am ndax xam-xam moo moom mooy may nit ki mu mën a bokk ci liy sottal développement boobu ku amut xam-xam du ci mën a bokk du ci mën a bokk ci anam ga mu gëne waaye am xam-xam mooy tax mën cee bokk ci anam ci anam ga mu gëne ndax mooy tax mu xam li ay wari garam mooy li ko war li ko war ci biir nit ñi mu nekkal mooy xam itam ay àqam mooy lim saña a séentu lim sañ a séentu ci ñi mu nekkal te yooyu mooy tax nit ki mën a bokk ci luy sottal développement luy sottal ak yokkute xam-xamit mooy tax nit ki mën a def li ñuy tuddee planification te mooy rek nos nos mbir tëral ko xam fi muy tàmbulee fi muy jaar ba na muy sottee loolu xam-xam moo koy maye ku amul xam-xam du man loolu du man lam bëgg mu man koo nos balam caa dugg mu xam nu mu cay doxe fan la cay tàmbulee ba nan lay sottee loolu xam-xam moo koy maye kon xam-xam mooy manes naa wax ne euh, cëslaay li njëkk ci cëslaay yi tax développement mën a am bu xam-xam jàllee liggéey moo ci topp liggéey bu amul rek développement du mën a am ndax bu xam-xam bi mayee nit ki mu mën a xam li ko war ak liy àqam mën a rëdd yoon wi mën a sottale lim bëgg jëf nag muy liggéey mooy tax mu sotti mooy tax kon développement mën a sotti kon jëf walla liggéey lu munta ñàkk la moom ci ci développement waaye am na lu am solo yi ci développement te ñu bari di ko sàggane rawatina ci jamono jii muy nag jikko ju rafet jikko ju rafet jikko ju rafet mooy tax ba nit ki bu xamee li ko war mu di ko def ci coobareem ki am jikko ju rafet bu xamee li ko war te xam-xam moo ko koy xamal waaye nag jikko ju rafet mooy tax mu mën koo def ci coobareem du xaar bañ ko cay ga du xaar bañ ko cay forcé waaye jikkoom ju rafet mooy tax ba lum xam ne waru garam la mu di ko def ci coobareem di ko def ci xol bu sedd jikko ju rafet itam mooy tax ba nit ki du salfaañe àqi àqi moroomam mooy dana xam àqam waaye ca lay yem du jéggi liy àqam di jàll ci lool àqi moroomam la xam-xam moom moo ko koy xamal moo koy xamal àqam xamal koy wari garam waaye nag jikko ju baax ju rafet ji mooy tax ba muy taxaw ci wari garam ci coobareem mooy tax itam ba du jéggi ay àqam di jàll ci àqi keneen di salfaañe àqi keneen kon jikko ju rafet lu am solo la lu munta ñàkk la ci wàllu développement bu amul rekk développement bu mat du mën a am du mën a am leneen cëslaa it mooy euh, lii may développement itam mooy nu mën a boole cosaan ak jamono mën a boole cosaan ak jamono mooy nu mën a tëyee li nu doon ba mu ràññeleenu nu tëye ko taxaw ci waaye nag di ànd ak jamono di dëppoo ak jamono boole yaar yooyu yi mooy tax développement bu am njariñ di mën a am li nu doon fi nu taxaw ay reen la ay reen mooy nit ki day taxaw ci reenam waaye nag mën a ànd ak jamono nag mën a ànd ak jamono ci li jamonoy indi ci ay xam-xam mu di ko jëfandikoo li jamonoy indi ci ay man-man mu di ko jëfandikoo li jamonoy andi ci am-am mu di ko jëfandikoo yooyu yëpp mu di ko jëfandikoo ci luy gën a rafetal gën a baaxam ba gën a baaxal aw kiinam da fekk nag mu téye mu mu taxaw ci ay reenam ndax ku ku taxawut ci reenam lool du développement waaye leneen la kooku day seey seey lay firi seey mooy ku bàyyi lim nekk dem fekki keneen ca lam nekk. loolu du développement waaye seey seey ci leneen lay firi kooku koy dafay amatul ku amatul la dëgg-dëgg développement nag mooy ku fi nekk ku fi nekk tey yokk li tax nit ki nekk fi nag mooy mu taxaw ci ay reenam mooy li mu doon mu taxaw ci téye ko waaye li tax mu jëm kanam nag mooy muy ànd ak jamono di jëfandikoo yi jamono indi yoo xam loo xam ne xëy na démb amutoon ci wàllu man-man ci wàllu xam-xam ci wàllu am-am leneen li taawu développement mooy nag li ñuy tudde ak dal ak li ñuy wax sécurité bu sécurité amul bu jàmm amut jàmm bu amut xel mu dal bu amut ak jëm kanam du mën a am li wolof naan bala nga ne naam nefa nefa mooy da koy tal bala ngaa mën a yokk danga nga koy tal ki nekkul ci jàmm du tala def lu koy yokk waaye jàmm rek mooy doon yitteem jéem a am jàmm kon balaa kenn mën a e, jëm ci kanam di am développement day fekk mu am jàmm am ak dal am li ñuy tuddee sécurité muy kaaraange yooyu kon mooy yi nga xam ne ñooy taawu développement mooy lu ci manqué rekk développement du mën a am lislaam nag ci yar lay jaar ba mën a sottal développement nu xool kon nim ciy jaare bay sottal développement yar mooy lan yar mënees naa wax rek ne mooy bi nit ki ñëwee nit bu ganee àddina dafa am lu yàlla dëxëñ ci moom walla yu mu dëxëñ ci moom mooy yu ma ko bindaaleel te mu ne ci biiram fesut feeñut waaye mi ngi ci biiram yooyu nag yar mooy lan mooy ñu taxawu nit kooku di door a ñëw ba yooyu ko yàlla moo ñaaleel dëxëñ ko ci moom mën a feeñ mën a màgg ba mën koo jëfandikoo ba mën a jariñ boppam mën a jariñ ñim nekkal kon mooy jàpp ci loxol kii door a ñëw taxawu ko teete ko ba yu yàlla defeñ ci moom ci ay man-man mu yooyu mën a màgg mën a mat mu mën koo jëfandikoo ba mën a jariñ boppam mën a jariñ ñi mu nekkal ab yar ak jubloom mooy ni niñ ko waxe woon ci jublu jublug lislaam ci boppam rek ab yar buñ koy def lañ cey jublu mooy nit ki mën a amal njariñ boppam mën a amal njariñ ñi mu nekkal waaye ak mujjam dëgg-dëgg nag mooy nit ki mën a am taxeeg àddina ak taxeeg àllaaxira te loolu moom la ñu waxoon ci njëlbéen gi ne mooy jublug lislaam nit ki am taxek àddina am taxek àllaaxira loolu itam mooy jublu bi gën a sori gi ab yar am waaye day jaar nag ci nit ki mën a jariñ boppam mën a jariñ ñi mu nekkal ab yar am na ay wàll wàll yan am nay wàll yu muy jëm wàll yooyu mooy wàll yi nga xam ne rek yàlla dëxëñ na ko ci nit wàll yépp bokk na ci wàllu xel yàlla dëxëñ na ci nit am xel kon xel ma war nañ ko war nañoo yar nit ki cim xelam ci wàllu xel yàlla dëxëñ na ci nit li ñu ma tuddee euh, xol ak ruu ak ruu ak xol moom yàlla def na ko ci nit dëxëñ ko ci moom kon wàll googa itam lu ñu war a yittewoo la bu ñuy yar nit waaye jëmm ji ci boppam mu yaram wi yaram wi itam lu ñu war a jëme yitte bu ñu yar nit ak nag luy tax mu mën a jëflante ak nit ñi yooyu la ñu tudde wàllu social kon ñeenti wàllu yooyu yëpp wàllu gu ci ne ab yar da koy jox yitte bu dee yaram wi war nañ koo jox yitte bam mën a wér aw yaram yar ko mooy fexe ba mu wér fexe ba mu nangu itam nangu nangul boroom mooy mu wér nangul boroom itam ba lum ci bëgg a def man ko caa def loolu mooy yar aw yaram buñ bëggee mu wér nag dañuy fexe ba la muy jëfandikoo doon lu baax mooy la muy lekk ak la muy naan doon lu baax lu sell dañuy fexe itam ba muy set ba muy set aw yaram set bokk na ci li koy li koy li koy li koy suuxat li koy màggal li koy li koy yar bu wéradee itam ñu faj ko nit ki bu fekkee li muy jëfandikoo sell na te mi ngi set itam mën naa mucc ci wérade yu bari waaye du tey wér di man koo dal kon la cee topp mooy bu ko wér di dale itam ñu taxawu ko ba mën a ba ba faj ko lii tax aw yaramam nangul ko mooy li ñuy wax tàggat tàggat yaram mooy dañ koy war a tàggat loo dañ ko war a tàggat loo aw yaramam wala dañ ko war a tàggatal aw yaramam ba yaramam nangu ba ko def loo mu man koo def fu mu ko jëmale mu mën faa jëm lu mu bëgg ci moom mu mën ko caa fekk kon wàllu yaram noonu lañ koy yare wàllu yooyu yëpp buñ ko ci taxawoo rek mën nañ nekkoon nit di ko war ci wàllu yar ci wàllu yaram def na ko bu fexee ba li muy jëfandikoo doon lu sell di set moom yaram wi bu wéradee ñu di ko faj di ko tàggat itam ba mën a nangul boroom loola mooy li war ci wàllu yaram ci ab yar yaram woowu itam mooy mën a mooy mën a bokk ci développement ki yaramam mel noonu mooy mën a bokk ci développement ki yaramam melut noonu wérut ku wérut mënut a bokk ci développement nañ la tax ñuy wax wala yaramam nangulu ko moo ku wérut soreewuñ boobaa euh, lañuy ñuy séentu ci développement borom yaram woowee du ko man bu dee ci wàllu xel moom li koy yar dëgg-dëgg rek mooy jàngloo jàng xel jàng lañ koy yare am xel jàng lañ koy yare mooy jàng mooy tax mu màgg mooy tax muy jëm kanam mooy tax mu mën a amal njariñ boroom dëgg-dëgg ba mu man koo jariñoo ci lu koy jariñ moom ak lu koy luy jariñ ñi mu nekkal kon xel moom jàng lañ koy yare bu dee ruu ak xol moom jaamu yàlla lañ leen dir yare jaamu yàlla loola moo leen di suuxat loola moo leen di màggal loola moo leen di jëmi kanam mi ak ruux ak xol jaamu yàlla lañ leen di yare kon wàll yooyu yëpp ñooy wàll yi nga xam ne ci la yar di aju ci la yar di jëm wàllu yaram wàllu xol wàllu ruux ak wàllu xel wàllu ruux ak xol yar boobu nag day lu am wàccuwaay day lu am wàccuwaay ci lislaam mooy lislaam da dafa am fu ko teg fi ko teg mooy dafa digal nit ñi ku ci am njaboot mu taxawu njabootam ba mën a am texeg àddina ak gu àllaaxira te loola mooy yar yàlla dafa wax ci alquran ne yéen ñi gëm na ngeen fegal seen bopp sawara na ngeen fegal seeni njaboot sawara yaa ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara loolu mooy cosaanu yar mooy fegal sag njaboot sawara mooy kon jaar ak ñoom fuy tax ñu mën a mucc ci sawara te kuñ jaarale fu koy mucculoo ci sawara rek dana ko may itam texeg àddina dana ko may texeg àddina ak texeg àllaaxira texeg àllaaxira mooy mucc ci sawara dem àjjana ku mucc ci sawara àjjana lay dem ku dem àjjana mucc na ci sawara kon loolu mooy texeek àllaaxira te loolu la yàlla wax nit ñi ñu fexe ba ba amal ko seenum njaboot noonu mu ko defe farata it noonu la xam lee ne ku ci taxaw dana ko fay yool bu mag te yool ba wax na ne moom yonent bi sallallahu alayhi wax na ne ku am njaboot taxawu leen ku am njaboot taxawu leen yar leen yar bu rafet njaboot ga dañuy dox digganteem ak sawara mooy dañ koy musal ci sawara mooy kon taxaw gam taxaw ak njabootam da koy musal moom ci boppam da koy musal ci sawara ndax moom musal na leen ci sawara jaaral na leen fu leen tax a mucc ci sawara yàlla da koy faye moom itam mu musal ko ci ci sawara kan moo kan moo war a yar warugaru yar kan moo ko amee kan lay waru garam dañ naan rekk li ñuy tudde société bi rek société bi yëpp ñoo am warugaru yar ndax ki ñëw société bi la fekk si kon société bi mu fekk si ñoo ko war a taxawu jàpp ci loxoom bali yàlla dëxëñ ci moom mën a màgg mën a feeñ mu mën koo jariñoo mën a amal boppam njariñ mën a amal mbooloo mi mu nekk itam njariñ kon société bépp la waaye nag am na ñuñ ci joxañ mooy am na ñu ca gën a yey ci biir société bi ña ca jiitu mooy ñaari way jur yi ñaari way jur yi la ca seen warugar jiitu ndax ñoom lay njëkk a dajeel ci biir société bi li muy yaatu yaatu ñaari waajur lay njëkk a dajeel kon ñoo ko war a njëkk a taxaw moo tax yàlla bi muy wax ñoom la waxal bi mu naan na ngeen e, fegal seen bopp sawara fegal seenum njaboot sawara ñaari waajur la waxal kon ñoo ca jiitu ñaari ñaari jur ñoo jiitu ci waru garu yar buñ jàllee daara yi ñoo ci topp mooy fi ndaw yi di jànge xeetu xeetu njàng mu man di doon nag moo xam ne ñu tudde daara la moo xam ne ñu tudde école la lu ci ne e, buñ fa yóbboo ay xale ñoom am nañ warugaru yar xale boobee ni way jur yi amee warugaru yar seen njaboot fa ñuy yóbbu seen njaboot ñu fay jànge itam ñooñee danañ am yar e, warugaru bokk ca yar ba bokk bokk ko ànd kook way jur yi du wàcc way jur yi waaye dañ koy ànd ak ña nga xam ne dañ fa yóbbu seen njaboot ñu fay jàng waaye li ëmb lépp itam te mooy état bi état bi nga xam ne moo jëmbal moo jëmbal société bi yëpp moom it am na ci warugar moom it daa war a ànd ak way jur yi ak daara ji dafa war a ànd ak ñoom cib yar mooy kon lépp luy yombal ab yar di ko jàpp ndal moom état da caa war a taxaw waaye lépp lu koy jafeel di ko gàllankoor waru ko def da ko war a daw moom bu taxawoon ci loolu rek danañ mën a wax ne lay wàllam ci yar ma ngi koy def ndax ñiy jonjoog xale bi dëgg dëgg moom mooy way jur ya ak fa muy jànge waaye état bi leen tiim nag euh, waru garam mooy mu yombalal ñooña luy tax ñu mën a am yar bu rafet ci ñañ bëgg yar lépp loo xam ne itam day gàllankoor ab yar mu mën a fexe ba ba ba jëlee ko ba fànq ko fànq loola ba du am kon ñett ñii ñoom dañ leen di joxañ ci wàllu euh, yore waru garu yar société bi yépp la waaye ñoom ñetti kuréel yi nag ñooy jëmmal société bi waajur yi ak daare ji ak état bi yan ñooy taawu yar mooy yi tax ba ab yar bu rafet mën a am da ca jiitu mooy jàng jàngale ku yar nit da koy jàngal jàngale ci biir yar la bokk ku yar nit da koy jàngal lan la lan la koy jàngal ki ñu yar luñ ko war a jàngal sëñ Touba dafa wax ne bépp xam-xam bu am njariñ bépp xam-xam bu am njariñ waaye la ca wara jiitu te doon lu munta ñàkk mooy xam-xamu diine xam-xamu diine li nga xam ne nit ki bu ko xamut liy farata ci moom ci diineem du ko man loola moom xam ko dafa war jullit bu ne ñu xamal ko ko moom luñ cee dolli door ko caa dolli waaye buñ ko xamalee loola ba mu xam ko nag beneen xam-xam bu am njariñ bu ne mën nañ ko koo jàngal dafa wax ne xam-xam yi gën mooy xam-xam buy jegeel nit ki yàlla lu ci jëm ci wàllu pas-pas muy ngëm ak lu ci jëm ci wàllu jëf yi ni ñuy jëfi ndigal yàlla yi ak lu ci jëm ci niñ koy rafetale dal ci teg nag ak bépp xam-xam bu am njariñ hada wa xayrul ilmi dawil uqul ilmun muqarribun liman minhu nuqul kal wal fiqhi wa tasawufi wa kulli ilmin bi manafia yafi kon xam-xamu diine moo war a jiitu ci li ñuy jàngal nit ki waaye buñ ko ko jàngalee nag bépp xam-xam bu am njariñ it mënees ko jàngal waaye xam yu am njariñ yi nag moom itam jamono ju ne mën nañoo seet ya ca ëpp yañ ca gën a soxla yañ ca gën a soxla ci jamono jooju ci béréb boobu béréb sàngam ci jamono sàngam xam-xam yu am njariñ yaa ngi nii waaye jamono jii moom ci béréb bii moom xam-xam bii lañ ci gën a soxla boobaa man nañ koo gën a jox yitte man caa gën a xiirtal ñiy jàng ndax daa fekk ñu aajowoo ñu am xam-xam booba lañ ca aajowoo xëy na dafa matagut dafa dafa dafa doyagut te xëy na am na yeneen yoo xam ne moom euh, lañ ca am mënees na caa jàpp bu ko defee ñu gën a jox yitte kon yi nga xam ne yan ca am lan ca am doyewut gën caa xeetal ñi jàng ba mën caa am lu lu mën a faj sunu aajo kon yépp mënees na koo jàng waaye nag béréb bu ne ak jamono ju ne itam yan gën a soxla mën nañ caa gën a jëm jëmale seen yitte ba man caa xiirtal ñiy jàng ba man caa am luy faj seen yitte ca wàll googa ndax wàllu gu ne dañ ko yittewoo ci misaal it yittewoo nañ ñuy jàngal nit ñi seen diine kon xam-xamu diine war nañ koy jàngale ngir mën a am ñuy jàngal nit ñi seen diine yittewoo nañ ñuy jiite nit ñi ci seen diine ba tey kon war nañoo jàngale xam-xamu diine ngir mën a am ñuy jiite nit ñi ci seen wàllu diine waaye aajowoo nañ ñuy faj nit ñi faj ñuy faj nit ñi bu yore dee kon war nañoo kon woo nañ xam-xam buy tax nit ki mën a faj buñ ko toppee noonu wàll yi nga xam ne dund gi soxla na ko wàll gu ci ne war nañoo am ñu am xam-xam bu jëm ci wàll googa ngir ñu mën a faj yittey nit ñi ci wàll googa jamono ju ne nag bu fekkee am na lu luñ gën a aajowoo mën nañoo gën a jox yitte loola ba am ca lañ ca lañ ca aajowoo bu ko defee it buñ gënee aajowoo wàll sàngam mën nañ ko gën a jox yitte waaye buñ koy jox yitte nag nañ ko ko jox ba mu mat nañ ko ko jox ba mu mat ndax loola mooy tax mu faj aajo ji dëgg-dëgg te bañ a def lu ñu bari di def léegi ma rawatina ñi jiite réew yi léeg-léeg dañ koy def dañuy wane ne ñu ngi def dara te duñ ko defee nam ware dañuy bëgg rek ñoo ne def nañ ko rek ba bu ñuy lim liñ def man ko caa boole rek ne def nañ nangam ak nangam ak nangam nangam waaye defin wa moom du defin wa tax ñuy wax ci misaal rek ay jamono ñi jiite woon réew mi bëggoon nañoo wane na ñoom ñu ngi ñu ngi defaree école yu bari ba tax daan nañ sos école yoo xam ne amuñ amuñ ci kayit rek lañ nekk mooy amul benn béréb boo xam ne dañ naan fii mooy école bi amuñ fu ñuy jànge foo xam dañuy mën ñëw dugg fa ñu ne école bee ko moom danañ ko sos ci këyit ñu bind ay nit ci turu école boobu ne ñoo fay jànge bind ay nit ci turu école boobu ne ñoo fay jàngalee waaye dañuy wër di di abbaatu di abbu école yi fi nekk ba noppi ñu dem kii abal leen benn classe bi sàngam ak bi sàngam kii abal leen ñaari classe bi sàngam bi sàngam kii abal ñetti classe bi sàngam bi sàngam kooku bu nee tabax defar na école itam daa bëgg ñu mën koo lim rek waaye loolu taxul ñu wax école misaal mu jegee ngi nii am na lu ñu fi def njaareem ci at yii dafa dugg ci li liñ doon wax ne jamono sàngam mën nañoo gën a woo nangam ba tax ñu gën koo jox gën koo jox yitte defar nañ fi li ñuy tuddee lycée d'excellence ndax Sénégal ay at ak yàgg nii ñu naan li ñuy tuddee filière scientifique yi dañ cee liñ ci liñ ci aajowoo daal amaguñ ko ba léegi ñi xale yi niñ ko niñ niñ ciy duggee dafa des liñ ci aajowoo amuñ ko ci ba pexe mu ne ñu cey jaar ngir jéem koo bëgguloo xale yi ba ñu mën caa dugg ba liñ ci soxla ëllëg ñu mën koo am ñu war a taxawu wàllu wàllu yooye ñu mën koo am ëllëg biñ ne dañuy defar lycée d'excellence bu njaareem ñëpp a ko rafetlu ndax aajo la waaye fan yii rek ku déglu kilifa yi ñu fay jànge ñu ngi jàmbat wane ne def nañ ko waaye nag anam ya moom anam yu doy waar la te niñ ko waxee woon dañ koy def ci anam guy tax xale yi sawar waaye ni muy doxee nii ñoom dañ mën naa dem ba xale yi duñ ci sawarati ña fa xas dugg sax buñ mënee génnaat mën ñoo génnaat ña ko xam te dugg guñ fa duñ fa sawar a duggati te dañ ne woon dañ koy def ci anam yoo xam ne day tax ba xale yi sawar faa dugg nga xam ne danañ ko xemmeem waaye buñ ko waxee ba noppi te defuñ ko nag loolu day day mel ne kon dëgg-dëgg xeet doo xam lan la daal am njàng du lu ñuy fooyee loo ci waneen da ko aajowoo danga ko war a jox àqam lum laaj ñu def ko ca te njàngum Sénégal dañ fi tudd xaalis bu bare bare bare naan mi ngi ciy dem waaye ñi ci nekk xam nañ ne amul jeexit kon mooy tudd nañ ko ne dem na ca waaye ndax dem na ca dëgg-dëgg ndax dem na ca dëgg-dëgg loolu nag du luy maye du luy maye jëm kanam du luy maye développement mooy di wane ne yaa ngi def te dëgg-dëgg defoo da ngay bëgg buñ bëggee bu ñuy lim daal limaaleel la ko yow def nga fi nangam def nga fi nangam def nga fi nangam te fekk nangam joojee nañ ko na la tax la tax ñu koy wax demewut noonu kon loolu moom itam lu jara bàyyi xel la ci am njàng luñ cay def dañ ko war a defee nay tax mu am njariñ waaye buñ ko defewut nay tax mu am njariñ duñ ca mën séentu njariñ loola kon lépp la ñuy jàngale lépp lu am njariñ ginnaaw buñ jiitalee nag xam-xami diine yi buñ ne xam-xami diine nag mooy la ca munta ñàkk la ca munta ñàkk moom daa war a jiitu loolu mooy lan la ñuy jàngale kan lañuy jàngal kan kan la ñuy jàngal moom ñëpp lañuy jàngal ñépp ñépp ay jamono dafa am ñu daan yamale njàng mi ci ñenn rek jàpp ne ñenn ñoo war a jàng bu dee ci xam-xami diine ñu jàpp ne ñenn ñoo war a jàng xam-xami diine ñeneen ñi ñoom buñ ko soriwut itam wàññiwut dara daanaka sax jëru ko loolu amoon na ci réew mi dañ daan wax doomi soxna doomi soxna lañ jàppoon ne moo war a jàng njàngum diine ku dul doomi soxna euh, mën na caa bañ a sori waaye sëñ bu mag bi bi mu ñëwee muy sëñ Touba dafa wane ne jàng ñépp ak war a def ku ñuy wooyee doomi soxna ak kuñ ko wooyee wut ba yi sax am na ñu jàpp ne njàngum jigéen amut solo njàngum jigéen amut solo sëñ tubaab yi mu ñëwee dane am na solo njàngum jigéen ak njàngum góor ñoo yem li ñu war a jàngale góor ñi lañu war a jàngale jigéen ñi li war a jàngale doomi soxna yi lañu war a jàngale ñu dul tudday doomi soxna moom loolu la santaane loolu la digle noonu la doon doxe am na bataaxel bu mu bindoon loolu la ca wax digal naa ñépp ñi aju ci man ñépp boo xoon loolu yem ci rek ñu xam ne ñépp dugg nañ ci waaye daa da ko gën a leeral ne góor ñi ak jigéen ñi góor ñi ak jigéen ñi ñoom ñëpp laa digal ñu jàng am na nettali boo xam ne ñu bari dañ koy dégg xay na bi nit masee ñëw ci moom fekk ay at ci ginnaaw mas na faa ñëw xamal ko ne am na doom mu toogaate at ñëw fa sëñ bi di ko ko laaj mu ne ko ah bu doon góor de mat naa dal bu doon góor de mat naa dal mu ne ko bi muy jigéen nag sëñ bi ne ko bi muy jigéen nag mooy lu tax nga bëgg a xaajale góor ak jigéen ci dal ku ku toll ci dal kay góor ak jigéen ñëpp dañoo war a dal ku toll ci war a jàng góor ak jigéen ñëpp war a jàng te loolu la daan doxal loolu daan doxal ñëpp la daan jàngaloo kon ñëpp war a jàng góor ak jigéen doomi soxna ak kuñ dul wax doomi soxna wàllu njàng kon mooy jàngal jàngal kiñ bëgg mu taxaw ci développement jàngal ko mooy li njëkk kon am njàng mooy li jiitu ci liy maye liy maye développement eh, ci ab yar ab yar li ñu war a yar nit ki ba mu mën a ba mën a jur développement leneen li ci topp mooy ñu yar ko itam ci liggéey nag liggéey liggéey nit dañ ko war a yar ci liggéey mooy muy mu yëngu ci dara di yëngu ci dara loolu sëñ bi mi ngi ko tudde moom fàggu lu lew ndax buñ naan liggéey it daa war a doon liggéey buy may nit ki lu lew mooy liggéey boo xam ne lam cay jëlee day doon lu lew mooy liggéey ba kon da cay tënku ci li yàlla bëgg liggéey boobee lam cay jëlee lu lew lay doon loola itam mooy maye mooy mën a maye développement waaye ñàkk a liggéey du ma du mënta yóbbu kenn fenn ñàkk liggéey mënta yóbbu kenn fenn waaye liggéey mooy mën a jëmale kanam aw nit mooy mën a euh, yokk aw nit mooy mën a baaxal mën a rafetal mën a gën a baaxal mën a gën a rafetal wu nekk nekkin wàllu fàggulu lew sëñ bi wax na ci wax na ci lu bari digle na ko wane na itam farata la farata la ab jullit farata la ci moom muy fàggu lew mooy muy liggéey liggéey boo xam ne lay la cay jógee lu lew lay doon la mu cay jëlee lay tax mu lew nag mooy da cay tënku ci ne ko yàlla bëggee waaye du ko defee rek nu mu ko neexe jàpp nu mu amee rek baax na déedéet waaye na jaar ci yoon yi yàlla digle boobaa lam amee lu lew lay doon te sëñ bi nag loolu la bëgg fàggul lu lew la bëgg waaye bëggut liggéey bu mën doon rek ci biir liggéey boobu kon war nañoo yar nit ki ci mu fonk liggéey ci boppam fonk ko waaye war nañ koo yar itam ci mu bañ a xeeb mu bañ a xeeb ab liggéey nit ki liggéey bi mu man bi mu man ginnaaw mënut beneen bu mën a amee lu ëpp lu ëpp li muy amee ci bii bii la man lim ci amee bariwut waaye moom la man warut waru koo xeeb waru koo xeeb bu manoon beneen moom bu muy amee lu ëpp li jaadu mooy mu wuti mu wuti la ëpp ndax loola mooy yokk waaye nag ginnaaw bii la man lim ci amee amut solo waaye nag moom la man kon waru koo xeeb da caa war a nekk ndax bu ko defut day toog loxoy neen te toog loxoy neen moom lépp a ko gën yonente bi sallallahu alayhi wa da doon wax ne toog loxo yi nen moom ëpp naa def liggéey bi la nga cee jële lu mu tuut tuut nga di ko def di ca jële dara moo gën bañ a liggéey bëgg a wéer sa say mbir ci nit ñi di leen ñaan ak di leen laaj boo doon taxani sax da ca joxe misaal xëy na ndax ci liggéey yañ xamoon te ca gënoon a ñàkk sol la ciy jóge la doon mu ne boo doon taxan di ko jaay sax di ca amee lu mu tuut moo gën nga bañ a def dara di wéer say mbir ci nit ñi kon nit dañ ko war a yar ci mu nangoo liggéey tey bañ a xeeb liggéey ginnaaw moom la man bu manee nag beneen bu muy amee lu ëpp moom euh, mën naa wuti booba waaw ginnaaw bii la man nag bu ko defut day toog wërta toog moom bañ a liggéey kon na bañ a xeeb ab liggéey euh, sëñ sëñ bu mag bi dénkoon na ko taalibey sëñ Babacar Ndiaye Cargaan dañu wax ne ñoo njëkk dem Ndakaaru ci taalibe yi bu bu nooree ñu dem fa di fa liggéey ay liggéeyaan bu nawete ñu dal li ca tool bay ndax sëñ Babacar ci boppam moo dem daal ba moom ku ku ku bari lu daan joxe ci àddiya la ndax ay taalibeem daamoon taalibe yu bari tañ mënoon a liggéey ci mbay mbay mi lu bare bare la ci daan joxe ci àddiya waaye mu gis ne bu mbay mi jàlle dañuy toog ay weer yoo xam ne dañuy toog noonu rek du joxe àddiya te moom joxe àddiya la bëgg mu mujj xalaat ne léegi buñ bayut kam dañ jéem a def leneen lu ñu mën a amee àddiya mu ñëw ci sëñ bi tàggu ko ne ko damaa xalaatoon loolu dama xalaatoon loolu bu noor bi ñëwee fere yi mën a dem ca taax ya bu amee liggéey yu ñu fa mën a def ba man ca am luñ cey mën a jëlee lu ñuy mën a joxe àddiya bu nawet jotee ñu delluwaat ca tool yi sëñ bi ne ko loolu baax na waaye daal leen dénk lam leen dénk bokk na ci liggéey bu ñuy def na doon bu bu yàlla nangu bu yàlla maye mooy kon liggéey bu dagan rek bu fa def benn liggéey bu daganut buñ xeeb itam benn liggéey bu dagan buñ xeeb benn liggéey bu dagan dañuy wax ne loolu moo jur li ñuy wax pàkku làmbaay bi nekk ndakaaru loolu sëñ docteur Khadim Sylla def na ci ay gëstu yu yaatu am na ci xam-xam bu leer itam ci ni loolu sosoo ba ba fi mu àgg léegi kon sëñ bi ci boppam loolu la leen digaloon buñ def benn liggéey bu yàlla bañ waaye itam buñ xeeb benn liggéey boo xam ne bu dagan la loolu kon bokk na ci li ñu war a yare nit ki ci wàllu liggéey li ñu war a yare nit ki itam ba mu mën a ba mën a jur développement mooy yar ko ci jikko ju rafet ndax nin ko waxe woon jikko ju rafet bokk na ci lii taawu développement jikko ju rafet jamono ji duñu wax developpement rek yem ci waaye dañ naan développement durable développement durable la ñuy wax mooy développement boo xam ne buy mën a sax la wala buy mën a yàgg ndax nit mën naa def lu koy jëme kanam ba noppi waaye di defaale lu koy delloo ginnaaw ba tax ñuy bëgg nag lu ñuy def lu ñuy jëme kanam it nañ ci bàyyiwaale xel ne du juraale ak yàq moom la ñuy léegi développement durable waaye foog naa nag la ëpp solo ci lii maa tax développement durable am mooy nit ñi nit ñi am jikko yu rafet ndax nit mooy mooy taawu développement luñ mën di tëral luñ mën di am ci xam-xam luñ mën di nangoo liggéey te jikko yi rafetul luñ mën di defit mën nañ ko yàqaat kon jikko ju rafet bokk na ci li tax dëgg-dëgg li ñuy wax développement durable mën a am du rek wàllu di bàyyi xel wàllu écologie ni nga xamee noonu lañ koy bàyyi xel waaye jikko ju rafet foog naa moo ci war a jiitu jikko ju rafet nag yaatu na waaye ci wàllu développement moom bokk na ci li koy mën a yi ci ëpp solo mooy nit ki wóolu boppam wóolu boppam wóolu wóolu boppam jàpp ne man na dara walla war naa man dara nit ki bu wóoluwul boppam rek du maa def dara nit ki wóolu boppam mooy tax mu mën a jéem te jéem mooy tax mu mën a def sëñ bi lool te teel na koo teel na koo jàngale teel naa wane ne nit ñëpp a yem bul xeeb sa bopp ay jamonoom ba nëgë sax ñu bari dañuy xeeb nit ku ñuul waaye moom booba la xamle woon ne nit ku ñuul ki bum bum jàpp ne nit ku weex da ko ëppale lenn ñoo yem rek kon boo wóoloo sa bopp rek danga mën a am lu ne te moom loolu la def moom moom ci boppam loolu la def dafa wóolu boppam ba tax diine mu am ci loo xam ne euh, ñim jamonoon teeloon te àggul fi àggoon moom ci wóolu boppam amuñ ca loola waaye wóolu boppam moo ko may mu àgg ci fam ca àgg kon loolu la jàngale nit gi wóolu boppam masaalikul naan gis nañ lam ca wax ci ne der bu ñuul du tax nit ki bañ a am ak dégg walla bañ a mën a am xam-xam waaye jikko ju rafet yi ñu war a yar kiñ bëgg mu bokk ci développement itam li ci gën a fees ginnaaw woolu boppam bokk na ci it nag muy bañ a yàq bañ a yàq ndax danañ di wax ne ku ku nangoo liggéey ne diw sàngam waaye mën a yàqe ne diw sàngam du am dara du am dara ku dàq liggéey ñëpp waaye dàq yàq ñëpp itam du am dara kon buñ ko yaree ci nangu liggéey noonu lañ ko war a yaree itam ci bañ a yàq yàq moom yàlla da ko bañ lool am na ñaar yu jege yoo xam ne yemuñ waaye yëpp la yàlla bañ li ñuy wax yàq da koo bañ dafa bañ li ñuy wax pasar pasare pasar pasare yàq mooy lan mooy fu ñu war a dugal fu ñu war a dugal waaye fu ñu war a def nga def fa lu ëpp aajo nga def fa lu ëpp aajo loolu yàq la loolu yàq la mooy yàq fu ñu war a def fii nga def fu ñu war a def la waaye liñ fi def nag ëpp na lañu fa aajowoo loolu mooy yàq pasar pasare nag mooy def fu ñu war a def def fu ñu war a def leela alxuraan di tudde israaf israaf mooy yàq tabdir nag mooy pasar pasare yaar yépp la yàlla wax ne yàlla yàlla wax ne bëggu ko bëggul yàq la wax gis nga bi muy wax dane na ngeen di lekk tey naan te bu leen yàq bu leen yàq mooy bu leen di lekk lu ngeen aju woowut bu leen di naan lu leen lu ngeen aju woowut kon na ngeen na ngeen ca yem te la ngeen aajowoo bu ngeen ko weesoo rek yàq la teg ca nag ne yàlla bëggul bëggul ñi yàq wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin bi muy tagg gaay gaayam yi itam boole na ci seeni jikko ne bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy jëfandikoo seen alal duñ yàq waaye duñ ngott duñ ngott ngott mooy fu ñu war a dugal nga dugal fa lu matul lu matul ngott mooy dugal lu matul yàq mooy dugal lu ëpp aajo mën a ñaar yëpp duñ ko def waaye dañuy digg doomu mooy dañuy def rekk lu tolloog aajo waaye duñ def lopp aajo duñ def itam lu yées aajo te man ko te man ko mën nañoo faj aajo ji ba noppi ñu bañ koo faj def lu ko yées duñ ko def waaye duñ def itam lu ëpp aajo bu dee pasar pasare moom dafa wax ne ñii pasar pasare bokki seytaane lañ noonu la ko waxee wala tubadir tabdira innal mubadirina kaanu ixwaana shayatin wa kaana shaytaanu li rabbihi kafuura sëñ bu mag bi itam bi mu santaanee liggéey it muy fàggu lew da caa teg nag ne boo ko amee nag bu ko yàq boo ko amee bu ko yàq nangay ngay lew te loo ca am bu ko yàq mooy nang ceey def la ca mat a def bañ a def lu ëpp lañ lañ aajowoo waaye bañ def lu yées itam te man ko kon daal yett yiñ doon waxtaane mooy lislaam akub yar ak développement foog naa ne ni ñu lëkkalooyee ni ñu jàppante feeñ na mooy lislaam li ko tax a jóg mooy nit ki am àddina ak àllaaxira mu am ci taxe te taxe rek mooy ay aajom di faju ay aajom di faju ci ni mu gën a jàppandee taxe ak àddina nag li ñuy wax développement moo koy maye développement mooy tax nit ki ay aajoom di mën a di mën a euh, faju ci anam gu jàppandi kon développement mooy maye texeg àddina développement boobu itam ab yar moo koy maye ndax dañuy defar nit ki dañuy waajal nit ki ci wàll yépp ba mu mën a sottal développement loolu daal laa jàpp ne xëy na mares na ko wax ci tomb bi nu sàkk woon nu wax ci maa ngi jéggaluwaat ñépp di santaat ñëpp wasalaamullahi aleykum wa rahmatuhu wa barakaatu. ñoom dañu foog ni ku jàng école rek la intellectuel mooy euh, ku jàng alxuraan ñooñ sax ñoo gën nekk intellectuel tey wane na ni wax dëgg yàlla nous sommes devant un intellectuel franchement ñu ngi lay ñu ngi lay sant bu baax lay gërëm euh, bi si topp it aussi dama ba lay sama question di ñëw dama damay wax ni aussi euh, waxtaan wi dafa am solo parce que yéen ngi wax si di tëkkale njàng ak yar li may wane ni aussi man dama gis dafa mel dama gis ni yar bi dafa am si école bi li tax ma wax ko mooy organisation bi ni mu mel nii parce que certes ñi ngi jàngale si école mais nag bu leen xeeb organisation bi bâche bii ngeen gis ah organisation bi soo ba léegi ay élèves ay élèves ñoo ko organisé loolu dafa am solo trop si man dama ko seetlu looy wane aussi école Badara bi aussi vraiment yar boobu mi ngi si parce que organisation bi koo gis mu doon une organisation parfaite bâche bi yëpp doy yëpp jaar yoon macha allah loolu moo ne aussi école aussi vraiment war nañ mettre l'accent si vraiment si yar boobu man dama gis ne école vraiment yar mu ngi si euh, mais man li ma li ma euh, li ma fi ma bëggoon insister tuuti rek li ma la bëggoon laaj tuuti rek mooy man dama dama seetlu njàng mu njëkk ma dafa mel dafa ëpp barke njàng léegi mi dama koy wax léeg-léeg parce que ñun bi ñu doon jàng ñu doon doon dox di jàng dañ doon dox ay ay kilomètres di jàng mais léegi booy gis léegi élèves bii jàng yëpp dañ leen jox paas boo ñëwee Kaolack man sama doom laay wax si moom laay commencé dama koy yónnee paas chaque jour muy jàngi soo damay xool ni léeg-léeg man fi ma doon jànge ak ak ak ak ak fi muy jànge vraiment benn la rek ma ma ma mel ni est-ce que loolu tamit aussi vraiment tamit foofu aussi Euh, parent yi aussi amul foofu benn responsabilité bu ndaw wala xale yi aussi bu leen mu leen gën a yee si loolu même bu même bu waajur bi amul paas bu mu joxe it ñoom ñu xam ne aussi vraiment war na ko yar si mu jéem dem jàngi loolu loolu daal laa doon laa doon laa doon laajte di di gërëm trop vraiment ñi organiser mbir mi macha allah jërëjëf Cheikh. am na solo seet lu nga ne daara ji taxawal bisub tey bii seetlu nga ne ab yar am na fi loolu nag dëgg la ndax bâche ay xale yu toll nii nekk fi te seen coow ëppul génn ëpp gi wax dëgg yàlla loolu ab yar la loolu ab yar la euh, bu dee nag wàllu euh, njàng mi bu njëkk ak tey ndax barke barke da da ca amoon bu njëkk te amul ci tey man na cee am man na cee am waaye jàpp naa ne it li ci gën a fees moom jàpp naa ne mooy bëgg gi bëgg gi bëgg xam nga àddina ni muy doxee day mel ne day wëri rek day am jamono joo xam ne nit ñi dañuy gën a jox yitte xam-xam seen bëgg-bëgg yëpp doon xam-xam ñu ci rawante di ci di ci di ci di ci di ci ëppalante jeneen jamono ñëw ñu def seen yitte am am am am man nag dama jàpp ne dañoo tollu ci fi mu ne ayuk ayuk am am mooy xaalis xaalis dafa aaye fi mu ne loolu laa jàpp dafa aaye ci ayam lañ toll moo tax nit ñëpp xaalis lañ jiital xale yeeg mag ñeeg ñëpp ñëpp xaalis lañ jiital xaalis lañu fonk bu ñu njëkkante ci lañ njëkkante bu ñu ëppalante ci la ñu ëppalante njàng mi ñu bari ci xale yi bëgguñ ko bëgg ay jamono dañ koo bëggoon ay jamono nit ñi dañoo bëggoon xam-xam nga xam ne ci lañuy ñuy ci lañuy rawante xam-xam ne ku ko bëgg man cee am loo xam ne ku ko bëggul du ko ca am loolu foog naa ne ci la muy kon ñi ñiy jàng ci seen bopp bëgg gi bëgg gi dafa des buñ ko lëkkaleeg yenn jamono yu jiitu bëgg ga dafa ëppoon booba loolu am na ci foog naa ne waaye ñiy jàngale itam ak wuute am na ci ñuy jàngale itam ñoom it dañ daan bëgg am njàngale jàngale dafa metti metti di woowu ku ko bëgg rek moo koy mën a jox àqam ku ko bëgg rek moo koy mën a jox àqam am na jamono nag nit ñi dañ ko daan bëgg dañ ci nekk ngir bëgg ko jàngale ku ne xam na ne amut xaalis am na euh, Oustaz Cheikh Aw Balla Guèye bu yàgg mës naa dégg muy wax naan ñi nga xam ne ay jàngalekat lañ moom na ngeen xam ne ñoom bëgguñu xaalis ndax ku bëgg xaalis du ko wute ci jàngale kon jàngale du fu ñuy wute xaalis bëgg ko moo ci daan dugal nit ñi jamono jii nag bari nañu ci dugg ñoo xam ne du bëgg ko moo leen ci dugal waaye moom lañu gis moom xëy na jamono metti na te nit ñi amuñ yenn formation yi ba seen man-man bariwut seen man-man bariwut te bëgg nañ am bëgg nañ fuñ dugg ñu gis na xëy na dugg ci njàng mi gën naa yomb ci ñoom ñu dugg ci waaye bëgg-bëgg ba nekku fi kii jàngale nag bu fekkee bëgg ga àggut fa mu war a àgg mu dajeeg kii jàng itam bëgg ga àggut fa mu war a àgg <laughs> wax dëgg yàlla jële ci lañ cey lañ cey séentu du yomb ay eh, jamono nag ñaari wàll yëpp dañ ko daan dañ ko bëggoon ñaari wàll yëpp dañ ko bëggoon bu ñuy wax nag moo xam jamono weesu la moo xam jamono jii la buñ naan ñee dañ ko bëggoon ñii nag bëgg gi dafa des waxuñ ne ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp la waaye ñi ci gën a bari nag la ay eh, jamono ñi gën a bari ci ñi daan jàng dañoo bëggoon njàng mi ñi daan jàngale itam dañoo bëggoon jàngale jamono ji ñu toll nag ñi gën a bare ci ñuy jàng bëggewuñ noonu njàng mi ñi gën a bare ci ñuy jàngale itam bëggewuñ noonu njàng jàngale dañ caa dugg rek ndax moom lañu am wala moo gën a yomb ñoom ñu dugg ci foog naan dëgg-dëgg foofu yëf yi nekk loolu nag xam nga barke barke moom dañ naan mooy barke njariñ lay firi njariñ njariñ barke njariñ lay firi mooy ñaar mën nañoo amandoo menn mbir waaye kenn ki la mu am lam cee jële ci njariñ ëpp ka ca des lam cee jële ci njariñ loolu lañ naan kii dafa barkeel mbiram daa barkeel te kay mbiram barkeelut barkeel kon xëy na ba tey mën na cee feeñaale ndax mën nañoo bokk lu ñu jàng kii li muy jàng moom la kee daan jàng waaye kee moom lam ca jële ci njariñ kii jëlewu ko ci loolu mën nañoo wax ne barke la boo xam ne xëy na daa manqué ci fii te amoon fee waaye la ko jur dëgg-dëgg foog naa ne mooy bëgg gi bëgg ci doon sàkku ak ki ko ko doon jox ak nag bëgg gi ni manqué léegi ci kiy sàkku ak ci kiy joxe hmm. mooy ne buñ jàppee ne xëy na bëgg gi dafa des ci ñaari wàll yëpp nuñ mën a waxee ñoom ba xëy na bëgg gi mën a am euh, loolu foog naa li nga wax rek la kiy jàng moom dañ ko war a di xamal ne njàng mi njariñam la njariñam la kii jàng njàng mi njariñam bu ci amee amewutoon liggéey sax njariñam la bu jàngoon ba noppi te amul liggéey ci lim doon jàng sax njariñam la mën naa wuti beneen liggéey amee ko ci geneen wàllu gu bokk ak gi doon jàng waaye du tey njàng mi njariñam lay doon loolu xëy na rek moom lañ mën a xamal kii jàng moom mu xam ne njàng mi ki koy jàngloo jubluwu ko sonal wala di ko fitnaal wala lenn waaye njariñam la daa jafe nag daa jafe ci xale boo xam ne gis na li ko wër lépp ñu jox seen yitte jëpp alal ak xaalis ba noppi ñu bëgg ko wax moom mii xale nag ne ko yow sa yitte jox ko leneen day jafe waaye mënees ta wees loolu xamal ko ne euh, jàngaloo gi ñu ko jàngaloo njariñam la bu ci amutoon ab liggéey amewu ci xaalis tam njariñam la te xaalis moom du raw xaalis lu yomb la lu yomb la bu ko yàlla dogal ci moom moom amut aw yoon amut yoon woo xam dañ naan mooy tax nga am ko am njàng nag am noo yoon luy tax nga am ko moom dangay ngay jàng jaar fi nga war a jaar daj ci li ci war a daj mooy tax nga xam ci xam-xam waaye xaalis amut loolu nu ne la ko nit di amee ci nu dagan sax laa wax waxuma nu daganut nu dagan sax nu ne la nit di amee xaalis bu bari bu dagan kon xaalis warut a jaaxal waaye li nga xam ne moom daa am aw yoonam boo ci jaarut doo ko am lool nga war a wut boo ko amee ba noppi nag bu yàlla dogalee ca loola nga amee ci xaalis baax na boo ko ci amee wut mën na mën nga ko amee ci leneen euh, foog naa ñiy jàng ñoom lu mel noonu lañ mën a waxee ak ñoom ñiy jàngale nag ñoom responsabilité ci wàllu googu lañ mën a waxee ak ñoom ndax dañ leen a dénk njaboot ngir séentu ci ñoom am luñ séentu ci ñoom. lu ñu bëgg ñu def ko ci njaboot boobu ci luñ leen war a xamal ak lu luñ leen war a yar luñ leen war a xamal ak luñ leen war a yar responsabilité boobu nag euh, lañ ci mën a wax ak ñoom mooy ñu xam responsabilité bi ni mu diise ak ni ko yàlla di laaji ëllëg ak àddina si rek li leen ciy mën a fekk ci responsabilité maanaam nit euh, jàngalekat war naa ruus jàngal ay élèves ba noppi ëllëg mu dajeek ñoom ñoom ñu xam ne kii daawul def liggéeyam loolu rek war naa am kersaam war naa am kersak ñi doon jàngal mu dajeek ñoom ëllëg tam xam ne ñoom xam nañu daawul def liggéeyam jàngalkat buy def liggéeyam saa bu dajalee saa bu dajee daan jàngal rek day day day bég ndax ñoom dañ koy won mbégte woon ko nuñ ko fonke woon ko ni mu leen jariñe ndax xam nañu daan def liggéeyam waaye ki ko daawul def nag foog naa ne saabu bu dajee kum daan jàngal war na am kersa ndax dana xam ne ñii xam nañ ne daawul def liggéeyam responsabilité yooyu xëy na ci lañ mën a waxee ak ñoom ba ñu góor góorlu ñu góor góorgóorlu waaye euh, mënees ta wees loolu waaw mënees ta loolu di ñaan yàlla ñun ñi fi teew yëpp yàlla nañu yàlla may dégg ak topp ndax li nga wax am na solo ci ñun ñi nga xamante ni yàlla dafa dogal ñu doon ay parents d'élèves ci école bi euh, di sant bu baax nag directeur ak ñi nga xamante ni ñoom la àndal di def liggéey bi di sant soxna yi nga xamante ni ñoo fi teew ñoom ñëpp di sant élèves yi nga xamante tamit ñoom ñoom am initiative bi organiser lu mel nii sëñ bi yow it di la beral ak cant bu wér a wér di la ñaanal gudd fan ak wér waaw lépp loo na ma liggéeyal sa maam daal ñi ngi ñaan yàlla kattanal la ba nga liggéey ci lu foofu sa njor loolu moom ñu la koy ñaan bu baax man nag dama doon dugg rek première li may njëkk a duggee mooy sant directeur ak corps enseignant bi yëpp ñi nga xamante ni ñun ñoo jël suñuy doom dénk leen ba pare di ci am satisfaction ndax man samay doom fii lañ nekk daanaka seen cycle yëpp lañ ko defee ba am na ku ci am BFEM daaw te performance bi ñu def ci ñoom man xam naa ko ndax lu bon bon jàng naa as am naa bac kon xam naa lan mooy jàng kon ñoom li ñu def man xam naa ko ñu leen ciy sant bu baax di leen ñaanal seen école bi fu ñu bëgg mu egg fa rek yàlla na ko romb te ñu doon seen njiglaay directeur ñu koy ñaanal gudd fan ak wér di ko ñaanal corps professoral professoral bépp euh, fi ma doon bëgg a àndoo rek. bëggoon nga ñaax ñu si tuuti dafay dugg ci suñu mbokk soxna yi ndax boo xooloo ci mbooloo mi tey dafa mel ni soxna yi ñoo fi te ñoom dañoo am solo ci éducation ndax ñëpp ci xëy da ngay dem bàyyi leen ak gone yi te gone yi demee école ba wàcc ñoom lañ fay fekk mu am loo xamante ni wax dëgg fa yàlla dama ko yàlla ñaxtu fu ma mënti liggéey di fa nekk dama fay ñaxtu di ci góor sama tànk tubal tamit di ci def sama sama képp lay kàttan ci mooy mbiru ndax ni ñu ko waxee cib yar ab yar bokk na ci itam lépp lu koy yàq lépp lu ko mën a yàq mbaam mën koo jafeel ñu fànq ko mooy ñu fexe ba du am te nag portable yi moom bokk na ci ci jamono ji bokk na ci liy jafeel ab yar ak liy mën a yàq ab yar ba tax na way jur yi xëy na tudd na ci jigéen ñi waaye góor ñi itam danañ ci bokk léeg-léeg am na góor yoo xam dañuy jëndal seen doom portable te àggagut fenn fi te àggagut fenn fi euh, kon mooy xëy na duñu wax ne li may wax moom mooy jàpp naa ne ab xale am na foofu bu fa àggul wërta am téléphone da ko wërta am waru koo am moom way juróom ji am téléphone nag waruñ ko ko bàyyee mu cay seet seetaan waxtu ko neexe ak la ko ca neex waaye léeg-léeg mën nañ ko caa mën nañ ko caa won dara léeg-léeg waaye ci seen kanam ñu koy taxaw ndaxte mën na koo dimbale ci njàngam itam mën na koo dimbale ci njàngam waaye day fekk ñu taxawu ko waaye dee su ko ko bàyyee mu di ca seetal boppam la mu cay seet ak waxtu mu koy defe waaye jur yi ñoo war a xam waxtu wuñ ko koy joxe ak lañ ko cay lañ ko cay won taxawu ko ba loola doon lu koy jàppale ci njàngam ba ñu doon lu ko yàqal kon li jiitu mooy waruñu wutal xale téléphone te àggul fenn fi te fenn fi ci ci at ci at lu néew néew néew moom kenn warta am téléphone te amul BFM moom lu néew néew néew buñ ko mënoon sax nañu bàyyi ba mu am bac waaye BFM moom ku ko amul kenn waru ko jëndal téléphone xale nag fu mën di toll bu xasee xàmmee rek mën nañ ko koy won am liñ ko cay won di ko ci jàngal mu doon njariñam waaye waruñ ko koo bàyyee loolu moom góor ñi jigéen ñi muy wayjur yi ñoo war a maase xam loolu te taxaw ci loolu responsabilité bi ma waxoon ci jàngalekat yi moom la ñuy wax ci wayjur yi itam ndax ab yar te responsabilité bu mag a mag a mag a mag te yar nag baay ak yaay wax nañ léegi ñi am war a garu yar ñoom ñaar ñoo ci baay ak yaay bu baay rek du yaay rek waaye ñoom ñaar ñoo war a ànd ba mën a yar seenu njaboot yar bu rafet yar nag lu ñuy def ci ñoom am na ca waaye lu ñu leen di fanqal am na ca mooy lépp lu ko mën a yàq ak lu ko mën a jafeel dañoo war a fexe ba du am bokk na ci nag ci sunu jamono jii moom portable bu ñu leen di bàyyee moo xam portable la di téléphone wala muy tablet wala xeet yooyu yëpp kenn waru ko bàyyee xale bu toll ci yenn at yi mën nañ ko koy won nag am lu luñ ko coy won di ko taxawu ngir mu mu yokku ca mu jariñu ca waaye warees ko koo bàyyee euh, loolu moom xam naa nag lu lu lu bari ci jigéen ñiit am na loo xam ne njuumte la ci ñoom mooy dañuy bëgg noflaay seen digg ak xale yi te yar nag mënta ànd ak noflaay yar bu fekkee da nga bëgg a yar mënta ànd ak noflaay jigéen ñu bari ñoom bu leen xale bi jàmmalee rek dañuy sant yàlla bu leen jàmmalee mooy bu nekkut di ñëw ci ñoom di leen yàqal li ñuy tudde yàqal ñoom di ñëw di wax ak ñoom wala di ñëw di laal lii di ñëw di def lii bu ko deful rek sant nañ yàlla mën nañoo bañ xool ca lan la nekk sax mën nañoo bëgg sax mu mu mu jàmmal leen ba tax ñu jox ko portable bi ngir ngir mën leen a may jàmm loolu nag njuumte lu rëy la ndax waroo am jàmm danga am am responsabilité yar kon waroo bëgg jàmm mooy waroo bëgg noflaay sa diggante ak ki nga yar xale bu ndaw nekk ak yow sa bët wërta teggiku ci moom ba ngay bëgg mu mu jàmmal la mu féexal la mu bàyyi la dem foo xam ne doo xam fan la nekk gis na li xew ci jamono ji lu bari loo xam ne yu mel noonu koy waral koo xam ne mi ngi ab xale waaye tege du ko tege bët ni mu ko war a tege bët moom bu ko gisul daal day mel day sant yàlla xale kenn mënu ko yor bëgg ko yor ba noppi da ngay da ngay noppalu loolu mënut a nekk waaye da xam ne loolu sa warugar la. sa warugar la dafa am diir boo xam ne dana ko weesu dana dem ba weesu foofu mën a dem ak boppam boobaa mën na laa wàcc ci genn teg bët googu mën na laa wàcc waaye yar bi moom ak di ko taxawu ak di seet la muy def ak lam du def loolu moom du la wàcc li fekk muy nekk muskàllaf li fekk muy nekk muskàllaf du la wàcc di teg sa bët ci moom nag jamono ju ne moom mën naa àgg foo xam ne mën na laa wàcc ndax mën naa bu àggee dem ci dem école foofu mënoo teg mënoo teg sa bët ci moom waaye saa bu nekkee ci kër gi moom danga war a teg sa bët ci moom euh, lu mu nekk lu ko mën a gaañ wala lu mu mën a yàqee dara wala lu mën a gaañee kenn nga génne ko ca loolu nag bokk na ci ay portable ak yu mel noonu lu ko mën a gaañ la lu ko mën a yàqal la lu ko mën a kii la ak daal lépp loo xam ne rek am polo mu koy yàqal wala lu koy gaañ wala muy dem ca mbedd ya wala yooyu yépp euh, kii yar daal daa war a xam ne moom daa war a xam ne wërta bëgg noflaay digganteem ak ki muy yar ndax responsabilité bu mag a mag la boo xam ne yàlla da koy laaj yàlla euh, yonent bi sallallahu alayhi wax na ne ku yar <coughs> njabootam yar bu rafet na xam ne bu ko defal toon leneen itam defal na ko àddina la ca biiram bu ko yaree yar bu rafet rek defal na ko àddina la ca biiram ndax lu mu ko munta defal itam moom dana ko mën a amal boppam ci yaram bu rafet waaye ku sàggane ku mu war a yarit bam sànku na xam ne la mu def doy na sëkk sëkk sëkk bàkkaar doy na sëkk sëkk bàkkaar ki sàggane ku mu war a yar ba mu sànku la mu def doy na sëkk sëkk bàkkaar kon ñi am njaboot gu toll ci ñu war leen a yar di leen taxawu buñ séentu buñ bëgg noflaay buñ ko bëggee rek la leen war duñ ko def leen war ci taxawu seen njaboot ci yar seen njaboot buñ bëggee noflaay duñ ko def ànduñ mënuñoo ànd yar sa njaboot yar bu rafet ba noppi am noflaay sa digg ak moom loolu mënut a nekk kon soxna yi war nañoo xam ne ku am njaboot gu tollu ci ñu war koo yar wërta bëgg noflaay bu ko bëggee rek kon la ko war du ko def góor ñeeg jigéen ñi waaye ni ko sëñ bi waxee euh, jigéen ñi ñooy gën a taqoo ak xale yi ba tax na kon wàllu googu ñoom lañ ci war a gën a waxal portable moom bu ñu leen ko bàyyee bu fekkee am na lu leen ci mën a amal njariñ am na waxtu wuñ leen ko mën a wone te taxawu leen nag mooy doo leen ko bàyyee yaa leen di won lañ ca bëgg a lañ leen cee jariñ ndax loolu tam bokk na ndax jumtukaay la jumtu li ma ko waxee léegi ci ci dëppoo ak jamono mooy jamono lu mu indi la jumtukaay bu jamono indi la boo xam ne am na njariñ am nay lor itam ki yar nag mooy taxawu njabootam ba mu mën caa jële njariñ ya mën a mucc itam ca ca lor ya loolu daal foog naa ne ci wàllu portable yi moom ak ni mën a yàqale xale yi ci seenub yar loolu xëy na mënees na ko cee yedd naa ba sonn wax naa ba sonn wante sëriñ simit wax nañ ba sonn nit ñi ñuy déglu nañu jéem a baax nañu jéem a xam euh, surtout ma nañu am tawxiid mooy xam yàlla suñ ko xamee suñu jàngat suñu àdduna dafay jàpp wante nag nit saa su ne dafa war a di nàmm xelam jëmale ko suñu borom nàmm xelam su lu baax mooy science ndax science moo ëmb lépp mooy islam science mooy islam mooy lépp soo fekkente ni tey sa xel mi wala sa xalaat mépp jublu nga ci si ab lixlaas mooy ab sellal lépp day daal baax lépp day daal di baax kon nag lu ko sëñ bi rek njaboot yi nan si sonn nan sonn si njaboot yi ñun waajur yi ñun ñëpp am nañ si responsabilité ñun ñëpp kenn ku ne sa noflaay rek nga wut sa noflaay doo nga mais nan xam ne ëllëg suñu borom dañuy laaj njaboot yi ñu leen yore ak ñu leen yore muy jàngalkat bi muy borom kër gi muy soxna muy dëkkandoo yi ñun ñëpp am na responsabilité si xale yii ndax ñoom xamuñu ñun ñu war a xamal ñun ñoo leen war a tete ñun ñii ñu leen war a gunge ndax tamit tey di nga gunge mais doo àggale kon nag nan si bàyyi xel bu baax a baax ñun ñëpp nan fexe suñu tout tànk yi jàng nan leen yar tamit ndax luñ jàng-jàng te yeeru leen daanaka lool rek la danga mel ne loolu lu ñu sëf rek la kon nag na leen fexe yar leen jàngal leen bu baax a baax ne leen jàngal seen àdduna seen seen seen seen diine jàng àdduna tamit ndax day tax ñaar yëpp su équilibré mu nekk am mu mat am nit waaw mu mu nite nite dafa am solo kon nag Mbàkke ñu ngi leen ñaan rek nga yàgg fi lool te ànd te di fesante yeeg kóllëre bu baax a baax si di ñaan nag eh, déwén incha allah suñu fekkee ah nga mayaat ñu ko rek waaw ñu ngi mayet ñu ko ñu gën koo yaatalaat bu baax a baax a baax ndax dafa am solo eh, eh, jotaay mel nii borom xam-xam ñëw teete ñu wax ñu salaamaaleykum man la Mouhamadou Lamine Diop euh, di parent d'élève ci école bi di Cheikh Mor Thioune maam fi samay doom yi fiy jàngee dëpp bi école bi ubbee ba léegi sama doom yi di fi jàngee amoon benn témoignage bu ma bëgg a def ci école bi rek. vraiment école bi am na solo lool lool lool te wax dëgg fi yàlla gis nañ ni école bi am na directeur bu dévoué bu bëgg liggéeyam mais aussi am na ay enseignants yu bëgg liggéey. ndax man depuis quatre ans cinq samay doom fii la ñuy jàngee comme ni ma ko waxoon sànq am naa sama benn doom boo xamante ni fii la amee BFM vraiment ma gis si aussi évolution ak euh, jàppandal boo xamante ni am na solo ndax euh, euh, enseignants yi bëgg nañ élèves yi bëgg nañ jàngale bi te ñu ngi góor góorlu ndax dañoo nekk si situation bu difficile nekk ci cadre bu difficile muy fii Touba nga xam njàng mi dafay xaw a tumranke tuuti kon bu ñu amee lu mel nii. yàlla dogal ñu dem ba mu egg fii dañ ci sant yàlla bu baax a baax waaw kontaan nañ bu baax vraiment ci jàngale bi ñun parent d'élèves yi quoi kontaan nañ ci bu baax a baax di ñaan yàlla aussi école bi gën a yokku gën a développé di ñaan état aussi mu jàppale leen bu baax a baax a baax waaw mu jàppale leen bu baax ndax dafa metti dafa metti quoi ndax xam nañ ni enseignants yi fi nekk bëgg-bëgg bi rek moo leen fi bàyyi mais du koom gi quoi ndax liñ leen di fay xam naa ne demul noonu kon na leen état jàppale bu baax a baax loolu daal moo doonoon suñu participation luñ ci bëggoon luñ ci bëggoon wax di ñaan yàlla daal yàlla na école bi jëm kanam jërëjëf euh, candidat yi def examen tamit yàlla na ñëpp am rek baax na jërëjëf merci beaucoup. yàqu xaali bi ko. ci loolu. futul baay Cheikh Abdoulaye. sosinaati yéena. baay Cheikh Abdoulaye. Thank you. Aisha Sefa Hamza Mustafa Murtala Muhammad Aisha Simbamba Simbamba Simbamba Gouvernement Simbamba Simbamba